mais après dañ naan dafa doon xoolal. Mhm. bu dee bu dee dañ naan turubal. Barth ko gën a wuyu ëpp ko ñu ko gën a wuyu man koo régler mais réew mi moo am état de droit. Mhm. absolument réew mi tey Barth bu jékki-jékki woon mën na woo kenn rek mën na ko woo fu Azura nekk mu fekk ko parce que Azura ñun xam nañ ñemewul. Mhm. ci dooley dooley réew mi la yor di ci cëppi cëppi maa la wax ci lay cëppi cëppi mais ñun on sait xamante nañ xam nañ amu fi. <laughs> du guerrier mais léegi kooku bu def loolu. bokk ci yow. yow li nga waroon a sàkku bañ jàppee Moustapha Diakhaté mm. da nga waroon a publier ne mm-hmm. ñii bokk ci ñun sax def lii dañ leen a war a jàppaat mm-hmm. man néew bu jàpp Moustapha de xam nga waxuma ko waaye dama ne xam jooju de mu jëmale ko ci yéen ñi voteel Sonko de moom am na ñoo xam ne voteel luñ Sonko de moom coro seen yaay la tudd moom seen waajur waaye yaar ñi mu foore man de ne ma. c'est l'interprétation que ko as fait. Ah. yow non donc attention attention Abdou Abdou yàgg naa la si yàgg na ko mu yeggali si dañoo bi jàpp si rek na ma réplique yàgg naa la déglu ma mm. yàgg naa la déglu yàgg naa la gis si plateau yi mm. tey soo nekkee SN Public suba yaa ngi si beneen chaîne donc euh, yàgg naa la déglu aussi ses interventions ak ses qualificatifs yi nga xam ne koy indi à l'encontre de ceux qui sont à Pastef yaa nga leen xar yaa leen tuddee man dama ne sax buñu ñu man ak yow ah. dina ndax sa CV da nga def étude vétérinaire parce que tu aimes trop qualifier les gens de moutons de vaches et de coqs ah, est-ce que yow wa ah. est-ce que yow est-ce que yow yow procureur convoqué na la voilà donc la loi ne se base pas hmm. sur le est-ce que qui défend na lit qui mhm. def nako mhm. naka koy juger mhm. la loi c'est dafa am c'est c'est des règles de droit écrit yo xamantene si le législateur bi di basé wu pour mën rendre ses décisions de justice. d'accord na amul leneen Azura Sadio Sadio vraiment nañu passé vraiment nañu passé pour man. et acha ngeen yeggali si question dama am question. djibi jibi may ko si ngeen acca. vraiment un débat. dina am ben affaire ma leeral parce que fan yeb gis naa ngeen koy jallo ci réseau yi. non yow mom yow mom Abdou Mbaye Abdou moom vraiment waaw. dama toog ak samiel ñuy débattre mu bokk passif. hmm avoué ko comme ni nga ko avoué ne Pastef la bokk. Mhm. ma toog di débat mu ne ma yow receleur nga. waaw c'est-à-dire que ñiy sàcc. effectivement yow yaa ñëw di leen défendre d'accord ma ne ko yéen waa Pastef ay xar ngeen. Mhm. voilà xam nga loolu question la. réponse dama mhm. dama tooñ. ma fayu merci beaucoup. tey man buñ may jàpp. jàppale sama yàlla voilà. xam nga loolu la mooy problème bi. bokkut ak ki toog nag reer ba suur raay kollam taal téléphone am saaga ah maanaam est-ce que lu lëmm nga ne seen ndey daal liggéeyul yow kenn tooñu la maanaam yow.

te waa Pastef bu demuñ sax xalaat lolu ñom dal bala ñoo toog waaw yeen ni complot won te bo waxé rek bo waxé ku lay tontu day dugg ci fond dossier te fond bi dossier bi dafa rafetul